êtes dans un pays démocratique où la liberté est garantie. wàllum offense au chef de l'État. article boobu si tu es président d'un groupe parlementaire ça veut dire que yow au moins tu as une partie du pouvoir législatif qui t'est conférée par le peuple par le peuple et, et ça moi je que vraiment les acteurs politiques là dañu war a jóg quand même euh, ci seen bopp ñu xam ne que assemblée bi c'est c'est pas c'est pas ça l'assemblée tu les querelles les injures euh, l'emprisonnement mais par rapport par rapport ak par ak forme de combat bu Pastef boobu moom j'y tiens parce que y a beaucoup non non je suis d'accord avec que la presse mais mais la presse depuis deux ans à chaque fois qu'on touche un journaliste on se mobilise on dit le monstre par-ci par-là mais le député il est aussi important que le journaliste dans la démocratie. et pour les pour, pour les militants du PASTEF. ceux qui font le conseil de casserole pour du PASTEF il y a deux problèmes le gro problème c'est l'investiture de Ousmane Sonko d'accord ceux qui sont en prison sont en prison à cause de ça okay. mais pourquoi ils n'ont pas fait de conseil de casserole non ça c'est au niveau sama problème <laughs> la au niveau de la c'est au niveau de la sama problème la par exemple man j'ai été scandalisé honnêtement mm par un fait au niveau du passé mhm. c'est inacceptable nga nekk Ousmane Sonko nga am ko comme chef nga am Pastef pendant trois ans yaa ngi xeex mais tu ne sais pas que on est en train de te décapiter parce que tu communiques mal et le Pastef ne dé, ne décrète pas Ousmane Sonko aurait dû depuis longtemps dire que écoutez on met fin aux déclarations à, à ça on opte une option stratégique mm -hmm. sur les questions d'intérêt national mm-hmm. l'autorité politique de Pastef prend la parole. Mmh. On fait une pause sur l'internet, sur ceci, cela. On centralise. C'est ça un parti politique. Tu en mais, danger. Mais il l'avait fait, hein, rappelez-vous, il a une déclaration. Il l'avait fait, hein, il avait dit éviter d'écrire, de parler sur les réseaux mais, sociaux. Mais malheureusement, malheureusement, après ça, on a arrêté qui Tous les dirigeants nationaux, tous les dirigeants départementaux, tous les dirigeants dans les communes. Sur la base de dérives langagières. Ouais, ouais, ils n'ont ils n'ont pas suivi. Mais un parti responsable, il aurait dit tout de suite que euh, Blackout, la direction gère la communication. Mm -hmm. Un, un président du groupe parlementaire n'allait pas se retrouver en prison comme ça. Ou bien un responsable de, de, coordination. Quelle que soit la gravité de ses paroles, il a demandé pardon quand même. que soit la gravité. Oui, mais pardon à ki ngay wax pardon kooku noonu. bu la jëkkoo du la baal ah. non mais ki ngay demander pardon. ki ngay demander pardon kooku bu jëkkoo du la. non après ngay demander pardon ku def kay ba pare ku def ba pare kay ngay demander pardon. c'est important ce que vous dites. oui l'autre versant c'est au niveau de la justice. voilà l'honorable moi j'ai un problème avec mon juge. moi j'ai connu des copains magistrats. Hmm? mais suñu bëggoon yóbbu prison amul fooy jaar suñu la dégloo ba pare dañ la yóbbu prison. ça c'était des gens fermes qui t'appliquent la loi mais dans le contexte actuel ni ñuy yóbbee nit ñi ci prison dafa yomb trop hmm. est-ce est-ce que jaruñu seetaat aussi nos nos juges nos magistrats tout le monde crie les prisons sont pleines. doyen c'est normal on n'a pas de juge des libertés on a des juges répressifs mhm. c'est normal ok dëkk dafay am un juge des libertés on doit penser à l'être humain en mettant en avant mmh, sa mm. liberté. on ne doit pas penser le mettant en, en, prison. en le, le Sénégal est le seul pays au monde où j'ai entendu un ministre de la Justice ou une ministre de la Justice, un premier ministre dire que foog ñu tabaxaat ay prison yu bees. Mhm. <laughs> on doit travailler à vider les prisons. on doit travailler à vider les prisons, on doit pas travailler avoir de nouvelles prises. non man bi ñuy def man bi ñuy dama yaakaaroon dama yaakaaroon c'est parce que dañu fi bëgg a jël rëbës voilà man loolu laa yaakaaroon pour man rëbës lañu a dindi ndekete ñoom ñu ngi yokk ay place yi non mais j'ai j'ai au ministre à l'Assemblée nationale quelle est la la première prison du Sénégal à mon avis c'est Rebeuss qui l'a construit euh, le C'était ça veut dire qu'avant le colon, il n'y avait pas de prison au Sénégal. Oui, oui. Le Sénégal existait. Comment on faisait mm-hmm. On ne réfléchit pas sur nos fondamentaux. au lieu ñu jàngal nit ñi au lieu ñu def de telle sorte que sàcc du amati criminel du amati wala mm-hmm. en tout cas mu wàññeeku. Mm-hmm. non on di continuer leen sàcc ak fen ak. def crime ñu tëj leen kaso. c'est c'est moo amuñu juge des libertés au Sénégal. te loolu dafa war a am. ki nga xam dafa war a examiner cas nit ki. Hmm. xool ndax kii dafa war a dem kaso wala déet c'est-à-dire. surtout Birame Souleye Diop a fait dérive langagière. Hmm. Hmm. le juge dit on doit le placer en en détention surveillée ou je sais pas en en, en détention préventive le juge des libertés dit. la gravité des faits mmh. ne nécessite pas qu'on le mette en prison. Laissons-le chez lui mmh. et continuons à instruire. Mais vous parlez des juges et, le parquet dans tout ça. Le parquet est fort au Sénégal. C'est le procureur qui met qui il veut en prison. c'est le maître des poursuites. oui mais procureur doole jooju ñu ko jox Sénégal on a l'impression que le procureur faire appel d'une décision de juge d'instruction mhm. parce que il pense que kii daf ko war a vraiment mettre en en détention mais ça c'est nos lois ñoo ko loi yi ñoo ko ñoo ko ko non c'est très très. gis nga bu ñu ci naree wax assemblée bi sax dinañ ko fàtte. dañu dañu copier dañu dellu si assemblée parce qu'on parle de loi projet de loi. le code pénal français dañ ko copier alors que le code pénal français. non dafa jóge ci histoire. Uh-huh. dañu génn ci révolution française dañu amoon peine de mort et cetera ñu copier ko da xool lu ñuy wax euh, kii euh, contrainte par corps. Mm-hmm. xam nga contrainte par corps mun na maintenir nit prison toute sa vie. Mhm. y' a pas de disposition bu lay génne. contrainte par corps y' a pas de disposition bu lay génne à moins que ki lay poursuivre renoncer. Mhm. donc y' a y' de détails comme ça dans dans notre architecture juridique. qui fait que. Mhm. on ne met pas en avant les libertés on met plus la répression. en avant et ça c'est pas bon. Dans si on parle de l'article ba léegi génnuñu ci ci wàllu loi. mais article 87 on peut en parler. on doit en parler d'ailleurs. c'est c'est un pense. il faut quand même que s'il y il faut ñu am un juge des libertés. des libertés quand même c'est important xam lan moo mérité dem prison ak lu mérité wul dem prison. parce que moi je pense que koñ boo dugg léegi koñ boo dugg. kër goo làmb rek am na koo xam ne mos na kaso. mais ñaar non ci baaxul ci dëkk sax tu mel ni quoi un pays comme l'Espagne on prononce des peines il y a des peines dès prononce da ngay xam ne nit ki du dem kaso. Mm-hmm. parce que mm-hmm. durée peine bi nécessité wul mu dem kaso. donc il y a d'autres mécanismes. il y a les travaux d'intérêt tellement de choses mais ñun kaso rek. kaso je sais pas fan lañ jëlee jikko boobu. c'est le système colonial. et puis et puis ma euh, honorable foofu danaa ci def benn benn digression parce que euh, euh, dafa am benn jamono benn kenn ku bokkoon PDS ci ci kàngam yi mm-hmm. ñu tëj ko prison mais bi ñu ko tëjee jour bi muy génn yàlla dafa dogal ñun ñëw nekkoon ci buntu prison bi di ko xaar yor suñ sama micro AZ mm-hmm. mais bi mu génnee man ko oui mais bonjour mais monsieur le ministre euh, votre séjour carcéral j'espère que vous avez pas eu trop de mm, baat yi ma wax matul trois phrases dañ ma non c'est vraiment malheureux c'est vraiment dommage que Macky Sall n'a pas fait la prison loolu rek ma wax dem te kooku tey mu ngi ci Macky Sall mais baat boobu du ma ko fàtte c'est dommage que Macky Sall n'a pas fait la prison loolu la ma wax ba tax ku sëkkat pour moom prison la ko war a yóbbu directement. Macky Sall yéeg na car rapide yéeg na sareet. oui mbaam pour jàngi. oui. ça ne l'empêche pas que loolu existe mais li ma wax non mbirum kaso moo doy waar honorable kaso dafa doy waar mais li ma wax no jour boobu teg dafa teg tànkam ci bunt bi Cap Manuel Cap Manuel dafa teg tànkam ci bunt bi rek non mais ma ni monsieur ministre mais loolu c'est tout ce qu'il m'a dit mu tontu non il doit pas réfléchir comme ça parce que aussi su nekkee suba a es un républicain tu aspires à diriger il ne faudrait jamais penser que c'est un président de République mooy tëj nit kasam. il faut qu'on il faut qu'on se départisse Sénégal Sénégal mbirum politique boo tuddee. président mooy tëj nit ki kasam non que ñu dindi c'est le c'est le parquet il dépend du ministère de la justice. qui dépend du président de la République ay nit wax nañ fi gaaf yu gën a ngand kenn tëju leen parce que décidé wu ñu tëj leen non ñu war suñu xel ni ku tukk ci kaso tegee homme politique mag président de la waxuma la Macky Sall mais président de la. mais ça va xam nga loolu c'est la normalité. mooy normal xam nga loolu c'est la normalité mais quand un président de la république sort publiquement et dire j'ai mis le oui. sur des dossiers c'est des erreurs de communication c'est une réalité dans sa tête non mais ki naan erreur de communication c'est pas une erreur de communication xam nga toute réalité kii loolu warul président de la république mënul tëj kenn mënul libérer kenn voilà mais le problème mooy li libéra ma wax la jonction entre le procureur et le président de la République elle est directe par l'intermédiaire du ministre de la Justice ces réformes-là on en parle depuis très longtemps nañu libérer procureur bi mais personne n'accepte de le faire mais xool conseil supérieur de la magistrature léegi chaque deux semaines chaque deux semaines on change des juges on affecte des juges et yow mi nga xamante ne citoyen lambda tu vois da ngay am lecture claire ci jeu bi. léegi hmm? bu ñu wax bu ñu bu ñu jógee ci loolu bu ñu déggee ci lool léegi man la man ma ma mon éternelle question vous êtes d' accord pour la séparation des pouvoirs. monsieur. non la séparation des pouvoirs. moom laay laajte chaque jour c' est mon problème. la séparation des pouvoirs elle est pernicieuse. et hmm. presque difficile à réaliser. xam nga euh, la séparation des pouvoirs John Locke moo ko njëkk a théoriser. Hmm. en Angleterre. Mhm. Après, Montesquieu l'a repris dans l'esprit des lois. Mm. L'esprit des lois. Mais mm. Montesquieu ne parle presque pas de séparation. Euh, séparation. Il parle d'un pouvoir qui limite le mhm. pouvoir. Mhm. Mm. Donc, il dit que le pouvoir est tellement important, il est tellement lourd, qu'il faut mettre en place un pouvoir pour le limiter. Et justement, notre problème là qui est en train d'arriver avec la réforme constitutionnelle, il n'y aura plus de pouvoir pour limiter le pouvoir. Ah, ça c'est sûr. Donc, de façon ah, automatique on va créer ce qu'on appelle le Léviathan un mm-hmm. monstre avec Thomas Hobbes on va créer un monstre qui va faire ce qu'il veut mm-hmm. si jamais la loi passe ah mais bien sûr si la loi passe on entre dans un régime despotique. Bien sûr, le président mmh. qui peut dissoudre l'Assemblée nationale ah, quand dans un régime despotique comme bon lui semble. Parce que les régimes despotiques sont caractérisés par l'existence d'un individu qui a le droit de vie ou de mort. C'est le leviathan. Le le leviathan. C'est extrêmement dangereux cette, cette, cette modification. Ouais. Te amul, quand tu regardes l'exposé des motifs, mmh. ça n'a pas de sens. L'exposé des motifs euh, ne te donne pas les aboutissants de la loi. Daf la pour des questions de rationalité. Rationalité et pour harmoniser les rapports entre l'exécutif et, et, et, le législatif. législatif. Nous allons modifier l'article 87. Mmh. Ce que les gens ne voient pas, c'est que cette histoire se prépare depuis au moins trois ans. Hmm? Ah bon? Depuis au moins trois ans. Quand on a fait la révision constitutionnelle pour ramener le poste de Premier ministre, hein? Hmm. Le titre, c'était Retour du poste de Premier ministre. Les gens étaient focus là-dessus. Surtout. Dans la révision, ils ont modifié l'article 40 de la Constitution qui empêchait aux suppléants du président de la République empêchés de dissoudre l'Assemblée nationale. waxaat ko euh, honorable tey non non il était. Euh, ma waxaat ko en wolof. waaw. article 43. constitution Sénégal pour delloo si poste premier ministre. waaw dañ supprimer woon poste premier ministre après ñu delloo si. bi ñu koy delloo si xam nga dañu waroon jël constitution bu yàgg ba rek indiwaat. Mm-hmm. ñaari at lañ ko def xaw ma ñetti at. Mm-hmm. mais dañu dugal ci réforme bi modification article quarante. article quarante da lay wax en cas de suppléance. Mm-hmm. les articles tel tel tel dont l' article quatre vingt sept ne sont pas applicables. cest le suppléant ne peut pas user de ces articles-là la c'est-à-dire supplé kii kii wutu président de la république ci ñetti weer yi président assemblée nationale mënul dissoudre assemblée nationale mais tey constitution bu bees bi yi ñu am bi article 40 bi dañu soustraire article 87 ci champ d'application ah mooy mooy le suppléant du président le suppléant maintenant peut dissoudre l'assemblée nationale hmm. kon kay assemblée man bi ñu koy dugal j'avais fait j'avais fait un amendement à l'époque même les députés moi j'étais membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar bien sûr loolu ma jaaxal na mis en terrible discorde avec tous les membres du groupe parlementaire mais même les députés de l'opposition avaient voté contre mon amendement hmm. donc ñu ne kiy wutu président de la république ci ñetti weer yi nga ko jagleel pour mu organiser élection bu ko neexee mu dissoudre assemblée nationale bi ma ko waxee le ministre de la justice actuelle gars yi posé nañ ko question mu càng mu ne ah de toute façon lan mooy problème bi si le suppléant dit sur l'Assemblée nationale où est le problème <laughs> maintenant un pouvoir que le président na pas waaw maintenant ñu ñu jël article 87 bi tey bugg a dindi deuxième alinéa bi mhm. parce que article 87 daf naan le président de la république mun na jokkoo ak président assemblée nationale ak premier ministre ba pare daal bi supprimer assemblée nationale. oui le président de la République peut. waaye après avoir recueilli l'avis du PM et celui du président de l'assemblée nationale prononcé par voilà. décret la dissolution Solution de l'assemblée nationale. mais cette dissolution ne peut pas intervenir dans les deux premières années de la législature. waaw dans les deux premières années ñu dindi ñu dindi alinéa boobu. Mm-hmm. Ah, mooy mm-hmm. président de la République. Mm-hmm. saa yu ko neexee mu dissoudre assemblée nationale. saa bu ko soobee. ne prétexte bi pour la la pour ñu boole élection. pour ñu rationaliser mais bu ñu rationaliser tey ñu dem deux mille vingt quatre ñu def élection ñu indi assemblée boo xam ne président bi toog assemblée boobu neexu ko méngoowul ak li mu bëgg. mu dindi ko dissout nga wootewaat nga teg assemblée bu ko neexul mu dissout ko. nit ñi ne loolu mënul am nit ki mënul dissout dissout dissout ma ne leen tant que yéen a ngi koy jox possibilité bi mun na ko def. lu tax lan mooy aboutissant yi lan mooy aboutissant yi pourquoi on veut donner au président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment man ci loolu laay oo nit ñi réflexion boobu lay oo nit mm-hmm. lan mooy intérêt nit koo xam ne six mois moo la dese à la tête du pouvoir mm-hmm. six mois mm-hmm. nga war a travailler à consolider ton bilan pour que ki lay sa candidat bi bi ngay am dans ton camp mun ko utiliser pour dem élection yow ngay def une modification aussi dangereuse pour le pays ça veut dire que am na am na loo ciy ut am na loo ciy ut si les gens ne réfléchissent pas sur ça en lii bu jàllee soxlaatul ñuy fal député. jaratul ñu am député. mais sur les principes sur les principes man dama mos a contre ñuy ñuy ñuy laal ay constitution bu réew quoi man sur les principes. parce que c'est des combats yoo xamante ni il faut accepter qu'on a qu'on a mené depuis tout le temps dans ce pays-là qu'on se permet de toucher à des constitution parce que euh, loolu du du du du taaru réew. Adama non seulement non seulement on touche la constitution quand on veut mais li ngeen xamul mooy que ni il est plus facile de changer la constitution au Sénégal que de voter une loi organique. Ah comment ça. Mmh. il suffit d'avoir trois cinquièmes des suffrages exprimés maa ngi dégg ñu bëri di wax su su kii majorité qualifiée. c'est pas la majorité qualifiée la majorité qualifiée est requise dans un seul des votes de l'Assemblée nationale c'est quand on met en place la cour la haute cour de justice pour modifier la constitution il faut trois cinquièmes des suffrages exprimés maanaam bu sept personnes présentes yi assemblée nationale j'aime bien le sept là parce que doyen Doudou Wade moo koy jël en référence mm-hmm. parce que nee na assemblée bu amee sept personnes mun na siéger sept personnes yooyu ñooy ñan mooy président assemblée nationale mooy ñaari secrétaire élu yi nga xam dañu war a toog mooy rapporteur commission bi présenté loi bi président commission bi ak ñaari vice président yoo xam ne mënuñ def assemblée te siégé wu muy sept personnes trois cinquièmes de sept c'est quatre donc ñooñ bu ñu dajee foofu ñu indi loi bi cadre yi ne waaw loi bi jàll ñu modifier la constitution de dix-huit million de Sénégalais Et ça, c'est l'un des pièges qui a été introduit en 2016 lors du référendum kenn gis ko woon constitution kenn mënu ko foyee noonu quoi ñun nag bon ah yomb na daal en tout cas on fait ce et malheureusement ni ñu koy expliquer nii ñun suñu bopp ñun suñu bopp on on ne va pas au, au fond des choses. moi je suis sûr que y a des députés même yu nekk foofu yu repre ñu ne dañu représenter le peuple xëy na maîtriser wuñu sax exactement parce que ma li ma ci dégg ñoom ñi ci jot a wax yëpp ils parlent tout ñoom ñëpp ci affaire loi 87. ils te disent oui bu boobaa président bu ko neexee lu ko neex lay def mais y a beaucoup de détails yoo xam ne bu ñu ko gënoon xamal nit ñi euh, peut-être que dina dina xaw a changer un peu la vision des choses je disais tout à l'heure que oui ça ça rappelle le 23 juin. mais est-ce le, le même on avait un président élégant. Ouais. qui avait la manifestation. et aussi une opposition qui avait fait un tapage. Non, médiatique non parce que bii nii xam nga bii nii ñu bëri ñu ngi laajte. ba tey ñu ngi laajte lan moo xew assemblée. mais bële da opposition bi dañoo taxaw temm daf ci benn campagne médiatique. Birama dafa gaaw c'est-à-dire. bi procédure temps bi temps bi ñu am. Mhm. moom la temps moom la ñu am fii. une semaine. procédure d'urgence 23 procédure d'urgence la woon. loi bi vendredi la ñëw assemblée nationale le 14. procédure d'urgence mooy euh, te sànq am na ñu ma ñu ma ciy laaj ma ne ma leen koy expliquer ñu ne ma est-ce que tey la loi va passer ma ne leen tey il se passera rien. ouverture de session la. ouverture ubbee session bi. pour wane rek que ni suñu direct bi jeex na ah. yëngu koy leve après kii. direct bi jeex na. levé nañ ko instant yi fini après okay. les, les de vos ah, ouais, après bu kiiyee mu wax ne euh, conférence des président dañu réunir pour teg mm. agenda bi donc conférence des président bu réunir lan mooy procédure d'urgence député article 60 mm. euh, ci kii règlement intérieur assemblée nationale daf ne député yi bu ñu jotee loi dañu am 10 jours pour lire ko mm. commission boo koy convoqué da nga koy convoqué sous 48 heures donc procédure d'urgence mooy lan dañuy délai yooyu day tëb délai dix jours de lecture bi du amati euh, convocation sur quarante huit de la commission du amati mais xam nga commission mënoo ko ne kaay kaay tey tey tey donc conférence des président actuellement ñu ngi réunir mm -hmm. pour defar agenda bi bu ñu génnee agenda bi certainement mun nañ convoquer commission des lois suba ci ngoon mardi bu commission des lois ñëwee examiner adopter ou rejeter def rapport am mu dem service législatif ñu teg plénière bi jeudi ou vendredi donc ci biir semaine bi normalement dinañ jeexal procédure mm-hmm. mais alerte yi commencé na vendredi samedi mm-hmm. li xew 23 juin c'est parce que il y avait une manifestation autorisée mm-hmm. il y avait une manifestation autorisée et un chef d'État il doit autoriser les manifestations pourquoi parce que ça lui permet d'écouter son peuple non <laughs> parce que aujourd'hui aujourd'hui si on fait cette réforme alors que nit ñi bëgguñu ko li muy jur du baax c'est li muy jur du baax donc Ablaye wat a écouté son peuple le 23 juin et a retirer la loi mm-hmm. à temps oui non non c'est une supposition on peut pas on peut pas de retrait de loi alors que ñoom demaguñu assemblée sax. oui mais non le gouvernement peut retirer la loi. am na sax message yu message yu daw réseaux sociaux yooyu de l'infox. de l'Assemblée nationale a lu l'ordre du jour. il a bien. bien sûr. mentionné la révision constitutionnelle en son article 29 et 87. Mm. donc ça veut dire que c'est encore à l'ordre du jour. n'a pas été retiré. mais il, hmm. il peut le retirer à tout moment. ils peuvent hmm. mun nañ mun na toog sax ba ci kanam mu retirer ko ñu ne commission bi. article 87 bi amatul. Ah, voilà loi bi retiré dañ ko ça. Euh, ñu ñu doog a dem ci code électoral bi code. voilà ça va retourner mais mais mais mais honorable li ñu wax mooy ca dialogue ba déggoo amul woon ci loi. article 87 bi. donc wax ji mooy Macky Sall fi ñu toll nii. je pense que moom mooy dérouler son plan le plan ah, Macky parce que bu fekkee léegi léegi est ko kon ñi les les dialogues les les dialogues ah ah <laughs> ñi amoon ay scepticisme ci dialogue bi ba ñi duñ ci dem boo ca demee tamit Macky Sall da lay nax da lay utiliser comme benn kii pour daf leen bëgg a def est-ce que ñooñu aussi tey bu ñu toogee du ñu leen jox raison même bu dee c'est 60 pour cent. c'est possible c'est possible mais ce qui est sûr. yow déjà loo dialogue bi est-ce que tu étais partant. non man je n'ai jamais. parce que n'oublions pas yow léegi da nga samp yooyu sa parti politique non non man sampuma dara. non non amoo coalition boo samp. man diisoo man sampuma dara man. diisoo dañ ko samp kon alternative citoyenne diisoo. ah mais quand même plateforme de réflexion la. pour jëm ci ay mbir. waaw jëm ci lépp. ah voilà xool ci lu xew Sénégal ah, donc dialogue bi yow est-ce que est-ce dialogue bi on n'était pas là-bas on n'est pas parti au dialogue et man ma position sur les dialogues politiques depuis tout le temps les nit ñi xam nañ ko j'ai dit deux partis politiques ne peuvent pas se réunir dans une chambre pour décider la pour la population le dialogue politique il se passe à l'Assemblée nationale nga xam ni la ñuy fay wax dañ koy dégg ñii dañuy tëju wax ba pare génn nañu lii lañ décidé loolu du du du dialogue seen seen complot la seen deal la seen euh, cuisine interne la maintenant ce qui est plus grave c'est que non seulement il n'y a pas eu d'accord mais on on se permet de dire c'est le comité de suivi <laughs> qui a entériné la modification de l'article 87 mais un comité de suivi ban pouvoir la am bay indi un nouvel accord dama ni nit ñi bu ñu ba tënk ne la yow yaay comité de suivi yow kañ da ngay topp ndax li ñu tënk ñu ngi koy def wala defuñu ko. mën daal mën daal li ma jàpp mooy on va vers un on va vers un plan Macky Sall te sànq Maria mu ngi may jox information que ni même les députés. qui sont de Taxawu. léegi on parle même plus de député de Yewwi on parle de député de Taxawu. pour wan leen ne que ni affaire bi léegi affaire de bopp sa bopp la. ils ont quoi non. c'est quoi l'info ils ont ils ont rejeté les députés de Taxawu rejettent la modification de l'article 87 de la constitution selon Abba Mbaye. oui moi, moi, moi, moi je pense à Daaña balaa boobu moi je pense que un député ak foo mënti bokk waroo nangu benn loi boo xamante ni ku mu président bu mënti ñëw heure bu ko neex mu mu mu dagg bu ak mu teg ko pare. en tout cas ñoom Moussa Seydi bañoon nañu ko ci seen jamono. et dama ne. waa kër Ablaye Wade député dama ne député laa wax. un hmm. député. xam nga député soo duggee biir hémicycle bokkatoo fenn. bokkatoo fenn. waroo bokk fenn waroo bokk fenn mais loolu amul Sénégal c'est-à-dire député yi waruñu nangu. loi boo xamante ni président de la République bu mënti doon heure bu ko neexee mën na dagg bopp moom laa la bëggoon parce que aussi ñoom ñu ngi nekk di parce que aussi branche bi nga xamante ni ci lañ toog gis nga ñoom day dem ba député amatul njariñ gis nga sur les combats de principe parce que aussi quoi qu'on tous nous sommes bon nous sommes des acteurs politiques mais sur les combats de principe il faut que ñun ñëpp parce que dafa am charte fondamentale bu nekk suñu kaw muy la constitution de notre pays. Mm-hmm. man personnellement je me suis toujours battu pour qu'on ne modifie pas notre constitution. man loolu dama ko mës gëm. xam non déglu lu ma mës a gëm la. yóbbu nga Adama non yóbbu ma ko damay gis buy wax ni ak série bi dafa may. non de cet article là. parce que suñu suñu charte fondamentale la. parce que lu ñu gëm la cest man mënu ma nekk. moi je vois au-delà du président de la République Macky Sall de la ah parce que la constitution c'est pour une pérennité c'est c'est cest du loo xamante ni heure bu la neex war nañu ko mën a laaj moo moo tax ma ne la je vois au la du président de la République Macky Sall parce que dans sept mois il le 2 avril il sera plus le président de la République du Sénégal. parce que loi bi defuñu ko pour nit donc ki koy wuutu suba heure bu ko neexee mën na dóor baaxul c'est pas une bonne pour man yi war nañ mën a taxaw xoolaat. xam ni loi bi baaxul wala ñoom ñi proposé loi bi xam ni loi bi baaxul ni retirer ko du circuit pour mën a continuer le le truc waaw non moi mon problème c'est euh, d'abord euh, Birame nee na le comité de suivi amul woon mandat pour adopter un projet ou un avant-projet le comité de suivi liggéeyam mu doon consolider accord consensuel mm-hmm. discuter sur les désaccords pour xool solution bu ñu indi Vraiment, ça, il faut que ce soit clair. Deuxième niveau, c'est que le dialogue, les conclusions du dialogue, article 87 bi ne faisait pas partie des conclusions. Mmh. nekku ci nekku ci et comment se fait-il par extraordinaire article boobu dem ci assemblée ba jël plus d'importance que, que le dialogue le, que le dialogue et les consensus. Il y a un problème d'honnêteté intellectuelle. maanaam suruxal nañ leen li ñu leen bëgg a peut-être mais. le danger il faut le voir pas en termes euh, clivants c'est-à-dire que suñu ne tey ji assemblée voté na loi boobu que président bu nar a falu 2024 mën na supprimer assemblée ça veut dire qu'on va vers un présidentialisme renforcé c'est sûr parce que dès le départ ku ñu nar a élire le 25 février

ou de réviser une constitution à l'état actuel des choses. Mhm. Macky Sall a mandat d'achever son son son, son, son, son, exercice. Il a, Donc, il a annoncé cette réforme deux fois et les gens ne l'ont pas entendu. Absolument. Donc ça veut dire que euh, c'est un problème, c'est vrai, politique, mais quand même c'est l'avenir de la présidence elle-même. Mhm. Il faudrait que euh, acteurs politiques, quand même, nous euh, discuter sérieusement. Est-ce que c'est à voter est-ce que c'est à rejeter est-ce que c'est à suspendre pour man euh, il faut vraiment suspendre que, que l'Assemblée puisse prendre la décision de suspendre l'examen de ce projet il faut le suspendre mm -hmm. comme de Wade l'avait fait il a il a suspendu à un moment donné puis il a retiré son ouais. projet de révision ouais. c'est c'est plus intelligent c'est plus apaisant mais nag yeneen question yi c'est que vraiment pour man euh, nañu bàyyi xel kam lu nar a ñëw Mm-hmm. lu am na lu nar a ñëw. bien sûr malheureusement j'ai l'impression que les députés là ñoom seen bopp xamuñu sax par exemple. li leen est-ce que mën naa la defal benn scénario. ci li nar a ñëw. Mm-hmm. bien sûr supposons que loi bi jàll. le président dissout l'Assemblée nationale. Mm. le 25 novembre. Mm. pour faire coïncider les prochaines élections législatives avec la présidentielle du 25 février trois mois. Mm. Macky Sall a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle mais rien ne l'empêche d'être candidat bien sûr aux élections législatives bien sûr oui si sa liste gagne et qu'il est mhm. il peut être président de l'Assemblée nationale deuxième personnalité de l'État mhm. et si son dauphin son choix son choix là est mm -hmm. un choix Ousmane Niapp qui va se déporter au bout de six mois oui. qui devient président lui lui il revient et avec l'article 40 il peut dissoudre l'Assemblée de et réorganiser des élections et Où être candidat. candidat. Oui, sera, ça, et rien ne l'empêchera. Non, et rien ne l'empêchera. Non, non, mais bien sûr. C'est un scénario. C'est un scénario. C'est un scénario. Je te fais un scénario catastrophe. Oui, oui. Ça peut ne pas être ça. Ça peut, ça peut aussi l'être. Parce que vous ne faites pas. pas être ça. Vous ne faites pas. En fait, d'analyser. Voilà. Non, non, non. Oui, mais écoutez, Macky Sall, il, il, il, il déroule son plan. C'est pour ça que le. C'est pour ça que le. Dans son plan. non moi je suis positif ah moi je vais. moi je, positif c'est pour ça le droit très positif par le droit ne dit pas ça ça ça c'est permis le droit dit ça ça ça interdit. interdit nga bañ ko def. voilà tout ce qui n'est pas interdit est permis. Hmm. tout oui mais mais moo tax moo tax ma ni va-t-on vers un plan yi man fi toll nii dama jàpp ni c'est Macky qui est en de dérouler son plan léegi nag li ci am solo mooy li ci am solo mooy ñu am ay boroomi xam-xam yuy xalaat. entre aujourd'hui et le 2 avril je le président de la République avec toutes les prérogatives. Mmh. moo ko et il a mmh. quelques jours avant mu ne. on devrait même dissoudre l'Assemblée nationale. bien sûr et coupler les élections. wax na ko fi. Mhm. ça veut dire que ça il le prépare depuis longtemps. depuis longtemps mais ça ça existait non. non non. couplage des non non couplage des élections bàyyi nañ ko depuis 93. amoon si si amoon na. législative ak locale ah six fois. ça n'a pas a décidé de ne plus coupler pour. éviter qu'il y des assemblées monocolores. Mmh. Merci. pour avoir une pluralité de représentation. mais mais une assemblée comme ça doyen maa ngi ñëwaat ci yow une assemblée comme ni ñuy am tout le temps ñun au Sénégal dem ba am habitude wax par exemple tel c'est c'est c'est un député de Macky Sall l'autre c'est un député de Khalifa Sall l'autre c'est un député de tel loolu lañu tàmm ñun ça c'est c'est c'est notre culture. mais bu fekkee loolu lañ nar a continuer aussi mais mieux vaut ne pas avoir d'assemblée quand même parce que mieux vaut ne pas avoir député parce que les députés ne nous représentent pas ces députés là mais ils ne nous représentent je suis désolé de le dire. Ah, mais ku nekk dafa am koo xam ne yow da nga naan man député la wala man député tel parti la alors que même bu ñu fekkee parti moo la fal mais attends tu es député du peuple. moo tax carrière parlementaire war a am. war a am dans les dans les grandes il y a des carrières parlementaires. Si tu prends quelqu'un comme euh, Giscard d'Estaing, mm -hmm. il a siégé à l'Assemblée nationale française jusqu'à sa mort quasiment. su saa yu jóge waan fii day delluwaat assemblée. Mhm. et il devenait la mémoire de l'assemblée xam nañ lan mooy rôle député. tout à fait c'est-à-dire si tu fais un deux trois mandats da ngay xam lan mooy rôle député. Mhm. doo doo doo nekkati di. Surtout que quand tu fais ton vrai travail de député oui. même si ton parti ou ta coalition refuse de t'investir mhm. foo dem ñu investir la te da ngay jàll tout à fait donc euh, mais euh, comme ni ko doyen waxee il est important que les députés eux-mêmes prennent conscience de leur statut oui, oui. parce que yow mi nekk député si tu n'es pas conscient du pouvoir qui est entre tes mains mhm. kenn mënu la ko kiyal Et les gars, quelquefois, ils ne sont pas conscients de ça. Ils sont plus versés dans. Dans toutes les assemblées du monde, il y a des gens qui se disputent. Mm -hmm. Mais ce n'est pas la masse critique. Le problème, c'est que dans notre assemblée, c'est la masse critique qui, qui fait euh, du désordre et y a très peu ah ouais. qui, qui, qui, font le travail oui, parlementaire. Mais xam lan moom jaar honorable avant doyen le fait que président de la république de bu ñu nee euh, li ñuy njort ni moom la bëgg muy gën a dooleel boppam. est-ce que euh, loolu noonu lan mooy njariñ bi en réalité parce que c'est pas la première fois mu koy tenté. Covid bi bi mu ñëwee. yow baal ma àndoon xoolal Covid. Covid bi bi mu ñëwee. adduna bi nit ñi di am ay mille deux mille morts par jour. déggoo benn pays boo xamante ni dafa jox blanc-seing au président de la république ni ko assemblée bokkatul. yow rek yaay dogal Sénégal rek. Sénégal rek le président wut porox ndollu pour jël pouvoir mais déggoo man la ñooñu ay ay ñaata mort lañ doon am par jour. Ah, des milliers. États-Unis moom ku wax démocratie xam nga ne États-Unis président bu ko nee doxalal sax xam na ni moom. doxalal dañoo tënk ay loxo parce que foofu am na institution yu forte yoo xamante ni les pleins pouvoirs les pleins pouvoirs ñu ngi dafa c'est c'est quelque chose boo xam ne dafa bokk ci démocratie parce que mënuñ nekk en période de crise ou de guerre ñu continuer di réunir pendant des heures et des heures pour jël décision mais plein pouvoir yooyu dañ ko encadrer c'est-à-dire aux États-Unis toutes les dépenses qui ont été faites ont été justifiées après boo ko justifié wul gars yi dañ lay topp mm-hmm. Mm-hmm. dañ lay topp fii mm-hmm. nag suñu rap xoolal suñu rapport Cour des comptes ba fàtte nañ ko. ordonnance yi fàtte nañ ko yàgg na day ñëw rek gars yi ratifié y' a pas de problème on vote parce que je le député du président man nee naa la début dix-septième législature yóbbaale naa ñaari député benn jour boobu gars yi amaguñ oto ma yóbbaale ñaari député ni ma monte ma ne leen du ngeen jël seen kii seen liasse budgétaire lu duñ jaar assemblée ñu est-ce que jaar na ko ñun de xam nga président lu wax rek ñu voté. Mhm. mais am na ku ni ku ni man député Macky Sall la lu mu indi dama koy voté du ma sax xool. biir hémicycle la ko waxee woon c'est extrêmement hmm? waaw non man ce qui gêne dans ça c'est que bon euh, on est dans le flou. et les, les projets sont déposés. Mm -hmm. et kenn mënul xam exactement quelle est l'intention du président sortant. Mm. et que fi ñu doon xaar Macky Sall euh, c'est pas vraiment la révision de la constitution. Mmh. quelques mois quand même d'une présidentielle mmh. aussi délicate président warul jël initiative de réviser une constitution quelle que soit l'intention c'est mmh. c'est toucher à des lois mmh. voilà c'est c'est l'élégance républicaine ouais. euh, qui euh, maintenant am na ba am ça veut dire que y a un projet derrière euh, su fekkente président bu ñu nar a fal 2024 dina am possibilité de dissoudre l'Assemblée, ça veut dire que l'exécutif va reprendre tout le pouvoir. Mmh. Et ça, c'est un danger, même par rapport à l'Assemblée actuelle. L'Assemblée actuelle, c'est les Sénégalais qui ont envoyé quand même euh, des députés. Mhm. c'est la rompu, volonté des on a Avec la majorité mécanique. Bien sûr. Il y a, il y a trois, ou, euh, trois grands groupes, il y a des non-alignés. Si le président Bilinara élire dina am pouvoir pour renverser. pour heure bu demee élection ñu gagné ko mu dissoudre. ça c'est grave par rapport à la à la à la démocratie. maintenant beneen question bi je ne sais pas comment les députés vont se comporter mais euh, c'est malheureux que jusqu'à présent amuñu des des parlementaires. Mm. on on n'a pas de parlementaires et ça c'est un danger. que ce réew bu amul parlementaire bu amul des responsables qui se battent pour le pouvoir législatif. mais le législatif va toujours dépendre de l'exécutif. De l'exécutif. Et moi je disais tout à l'heure euh, sur le président de l'Assemblée nationale fii la ñu nar a xam est-ce que président assemblée dafa nangu digal Macky Sall ou est-ce que dafa nangu ndigal pouvoir législatif euh, parce que là aussi il a un rôle à jouer euh, soit euh, mu conse mu déconseiller le président ou soit il va faire voter la loi donc donc ça aussi je pense que le président de l'Assemblée war na war na jouer pleinement son rôle. Mm. parce que quand même am na benn responsabilité politique moom moo nekk te jii président de l'Assemblée. bon évidemment les partis politiques aussi euh, je pense que waruñu toog rek pour euh, pour. Euh, dàq la loi en question il faut essayer les conditions d'une concertation mais doyen affaire yi bëri na ci biir de li laxasu ci biir parce que ñu ngi wax ci waxum CREI yi ci biir ci biir modification yi non dama la bëgg wax li xew assemblée li ci xew dafa bëri tey te yu bëri nit ñi duñ ko gis parce ci gannaaw la nekk cest à euh, gis nga je crois l'honorable a dit laaj contexte dafa laaj compte là apparemment l'hypothèse de Macky Sall c'est que def na dialogue am na conclusion il la les mains libres c'est ça le choix de Macky mais loolu il, il se met en danger bah, parce que le Taxawu ne va pas soutenir le ce qu'il va amener Yewwi ne va pas soutenir les non-inscrits ne vont pas soutenir et peut-être même certains de la de Benno ne vont pas soutenir. yaa ngi fàtte wàllu ah yaa ngi fàtte wàllu. yaa ngi fàtte wàllu gis nga yaa ngi fàtte wàllu ah. c'est très sérieux ce que nous sommes en train de dire. on revient à la case de départ. voilà c'est très sérieux parce que après après le 2 avril il restera 4 mois selon l'ancien article 87. pour dissoudre l'Assemblée nationale je ne vois pas pourquoi parce que le président de la République selon l'ancien article il a le droit au bout, voilà septembre c'est-à-dire il aura six mois il y a aucun le pouvoir la loi lui permet de dissoudre l'Assemblée nationale au bout de deux ans mm. n'est-ce pas on pouvait rester dans ce contexte-là parce que xamuñu kan mooy falu suba donc si on donne ce pouvoir-là à un président de la République mais attends c'est dangereux pour moi c'est dangereux et dañu war a nekk ci réew moo tax c'est un appel que nous lançons moi personnellement au président de la République Macky Sall parce que cette loi l'article 87 ñu bàyyi ko ni mu nekkoon démb ak barki démb moo gën ñu koy modifier parce que pour moi il doit sortir il doit partir par la grande porte parce que man nekkuma ci météo politique du moment où il a dit qu'il n'est pas candidat du moment où il n'est pas candidat moi je pense que il doit il, a posé l'acte et il va sortir par la grande porte loi bi day entaché acte bu mu posé yooyu yépp da koy entaché donc l'article 87 pour man dafa bokk ci article yi nga xam ni dañ ko war a retirer ci projet de loi bi jàmm ne ñooy le future président de la du Sénégal pourra attendre ba septembre li ko yoon may mu dissoudre l'Assemblée nationale ñu organiser waat yeneen yeneen élection mais un article peut en cacher un autre ah parce que ñuy wax article 87 te article 29 te article 29 coow li mu nar a jur mu ngi ci moo gën a doy waar parce que article 29 boobu article 87 bi da koo nar a nëbb te article 29 boobu mooy wax ci waxum euh, ci wàllum euh, qui peut s'inscrire sur les listes électorales hmm? te foofu nee nañu ñu ngi wax ay waxum. Euh, kii loolu code électoral. waaw waaw moom laa moom laa wax ma ni article dafa am. article ak article 29 de la constitution. ak article de du. code du code L29 du code électoral moo tax ma ni dafa am article buy nëbb beneen article même bu dee bii code électoral bi bii euh, constitution bi la. ay article la mais lépp ci assemblée lañ ko bëgg a inter entériné te lool moom laa la wax dafa am ay mbir yoo xam daf ci laxasu daf ci làqatu. xam nga article bi avant. daf doon wax. kii mun a inscrire mhm. daf naan ki nga xam ni après condamnation il a été réhabilité euh, d'une d'une mhm. léegi ñu yokk ci grâce waaw loolu mooy problème bi grâce boobu ñu ci yokk conti contumax non contumace mu ngi ci woon avant contumax non non non contumace la woon là on parle dans les débats contumace oui mais contumace kon amu ci amul contumace non ceux qui sont en état de contumace la. waaw mu ngi woon ci article bi avant. avant waaw mais là on parle. des personnes en état de contumace. de contumace. dañ juum ci écriture loi yaa ngi nii gañ boo bëggee après ma jox la ko. c'est-à-dire modification modification de grâce bi rek moo bi rek. les hommes les hommes jugés par contumace. loolu mu ngi woon ci waaw mais ñi mënut a inscrire. waaw voilà. xoolal non non mooy lu bees moo ci yokk quoi ci loi bi. Mhm. grab bi mais yi ci loi bi la bokkoon. mooy point 4 bi. ceux qui sont en état de contumace article 29. mi nga fa woon bu yàgg code bi. waaw mu ngi fa woon. loi baa ngi nii article 29 ceux qui sont en état de contumace. ma nga fa woon quatrième point mosul changé. mosul changé ma nga fa woon. booy liir texte bi boo leen di comparer da ngay xool li nekk en gras toujours li nekk en gras muy modification bi. man de su may liir lépp laay lire. waaw bon bien sûr que lépp war a non parce que. boo bëggee xool changement yi Sénégal gi ñu toll. waaw léeg-léeg li ñu lay mettre en gras loolu mooy li ñu bëgg nga xool ko alors que la ca biir. mais loolu moo ca loi boobu yàgg bi. Mhm. bu ñu ko détaillé lu ñuy wax sànq modification du code euh, code code pénal code procédure pénale. code de procédure pénale. et tout tout ça c' est dans l' article 87. non non non non non non bii code dafa am code pénal ñetti loi am constitution am code de ñetti loi lañ dugal. Mhm. dafa am une loi portant révision de la constitution. constitution qui va toucher l' article 29 de la constitution et l' article 87. article 29 moo doon wax affaire kii. mooy. wax ak. waaw léegi affaire boobu est-ce que doo ci leeral benn ah. affaire mooy bu ñu naree dissoudre assemblée. am na ñoo xamante ni amoon nañ tuuti pouvoir bu war a mën a am parrainage te duñ jaar ci parrainage du peuple est-ce foofu tamit. yaa ngi bëgg a nekk analyste politique. non non parce que non parce que. yaa ngi yaa ngi bëgg parce que parce que parce que. non parce que foofu. Maria Maria Sigil wax ak man. dama la ni non dama ni. député dafa am ay député dafa am ay député. moom da doon cité les yi nga xam ne moom la ñu introduire d'abord. non non député. te moom il reste oui parce que reste député le mandat est toujours. ba keroog résultat yi di génn ba conseil constitutionnel. validé ko waaw député. il a trois lois. man je donc il y a trois lois il y a une révision. parce que dinaa ko benn benn Birama yaa ngi Adama Fall léegi ngeen génn émission bi. <laughs> y a une révision constitutionnelle qui porte pour, pour, pour ceux qui ne comprennent pas. mais man tamit pourtant loolu laay wax de. non non pour ñu nga xam ne il faut nga ci benn article bala moo romb. ma ne ko foofu man nag bu ko cité ba pare ñu doog a ñaaw parce que man man ma xamul parle tellement de la 87 que am na yoo xam daf ñuy rëcc daal. donc yàlla révision constitutionnelle. Mhm. révision constitutionnelle donc ñaari article la concerné article 29 ak article 87. ok article 29 di gérer parrainage article 87 di gérer. l'histoire de la dissolution. de l'Assemblée nationale par le président de la République okay. après mu am révision code électorale mm mm-hmm. révision code électorale boobu ñaar yi ci gën a important L28 ak L29 yooyu ñoo mm-hmm. permettre les deux cas ñu dellusi ci langue gi kaa Karim ak kaa Khalifa mm-hmm. après mu am révision code de procédure pénale mm -hmm. qui supprime la CREI yi et qui apporte ce qu'on appelle le pôle judiciaire financier ah, foofu la kon foofu na mu ah, waaw waaw révision boobu ci gën a graaw la bokk. Mhm. c'est une bonne révision. mais pour pourquoi attendre maintenant. mais te 2012 la ñu. boo liiree exposé des motifs yi parce que loi boo koy jàngat toujours. da ngay exposé des motifs yi. parce que exposé des motifs yi. moo lay wan ki xalaat loi bi lu tax mu tëgg ko. li sénégalais yi di doon wax ci CREI yi yëpp loolu lañ ci def CREI yi baaxul. Mhm. CREI yi du. permettre nit buñ ko attaqué mu am euh, appel mm-hmm. créer opinion bi gisu ko nu baax mm-hmm. Sénégalais yi accepté wuñ ko donc pendant onze ans on a laissé ici une cour d'exception qui a détruit la vie de certains Sénégalais mm-hmm. et brusquement quand on pense quand on pense qu'on va quitter le pouvoir sept mois on l'enlève <laughs> et on le remplace par une juridiction boobu léegi ñu ngi ko naan bàyyil CREI. mais on on on baax non baax na. donc donc bu nekk ci analyse boobu. non non non bu leen ma embrouillé gis nga gis naa Adama Fall yaa ngi non non pour mot il a dit mot pour mot c'est une bonne révision mais. c'est une bonne révision non xam la laa d'accord Adama kii di notre invité bul dugg ci lii oui non, mais, mais quand, quand la loi est bonne li ma gëm dugal ci leen la loi est bonne leer c'est onze ans nangu li la nit ñi doon wax baaxul baaxul nga le pôle financier de justice financier c'est un très bon mécanisme parce que li yeneen juridiction yi am la am mm-hmm. tu as le parquet financier mm-hmm. tu as euh, le collège des juges d'instruction financier tu as la chambre de jugement, mhm. la chambre d'accusation, mhm. la chambre d'appel et des assistants de justice yu indi seen xam-xam parce que ils vont travailler sur des dossiers qui ne sont pas de leur spécialité. Mhm. Donc c'est un bon c'est une bonne juridiction et ils ont compétence sur tout le territoire et ils ont l'exclusivité des affaires touchant les finances, le détournement de deniers publics. C'est-à-dire même un procureur wala benn juge d'instruction buy instruire benn affaire ba gis ne que dafa laal ci détournement dafa war a déporté wu jox ko le parquet financier okay. donc c'est un c'est une bonne cour mais loolu c'est bu fekkee ne xalaat bu bees la ça veut dire qu'on ne capable de réinventer la roue loolu du xalaat bu bees hmm. c'est ça une juridiction normale mm. maintenant man moom laa moo tax ma ne la exposé des motifs yi xamoon nañ ko en 2012 bi Abdou Diouf di créer créer yi peut-être que mun nañ wax ne que dëkk bi tolluwuloon foofu mais Ablaye Wade bu ñëwee peut-être xoolu ko activer wu ko intéressé wu ko mais quand quelqu'un vient qui l'active et on dit que malgré les efforts de la CREI on n'a pas pu atteindre les résultats escomptés mais xamoon nañ ne que duñ ko duñ ko jot xamoon nañ ko Et il eu des mises en garde, il eu plein de choses. Les... La CRI a été une épée de Damoclès sur la tête de certains Sénégalais. moom ñu xam sax am na ñoo xam daanuñ nelaw ah. Mmh. Mmh. Mmh. l'ancien régime ñu tuddoon noonu ñoom nga ne nga ne bàyyi nañ leen bàyyi wuñ leen woon de chaque jour ñu fàttali leen ne que boo naan miig rek. ñu mais loo ci gis résultat ñoom ñëpp daanaka. ñoom ñëpp dem nañu fekk ji non ñi ñi créé kii woon oh. tegoon tegoon bët yëpp. mais dans dans la composition xam nga dafa am loo doon proposé sànq par rapport à la dans la la composition est-ce que waruloon am le. ci biir la chambre d'accusation en réalité mais la chambre d'accusation n'est pas un véritable juge des libertés parce que la chambre d'accusation c'est une première cour d'appel. ok ah juge d'instruction bu jëlee décision. sa avocat mën na dem ci chambre d'accusation wax ko mu casser décision juge d'instruction mais juge des libertés moom moom warul nekk ci ay juridiction sa c'est c'est quelqu'un qui doit statuer mhm. sur le fait que kii dañ koy yóbbu kaso wala duñ ko yóbbu kaso doyen non man bon toujours c'est la même appréciation cest à révision constitution bi wala même supprimer la CREI ah, ça c'est pas du domaine de Macky Sall Mm-hmm. il faut que les gens soient cohérents. kay waruñu nangu sax ñu supprimer CREI yi parce que CREI yi sonaloon nañu solo. il aurait dû attendre. ba élection ba élection présidentielle bi pare. parce que lu wóor bu wóor mooy que après mille vingt quatre il y aura des réformes. de grandes réformes de grandes réformes. Mm -hmm. l'administration la justice. la séparation des pouvoirs mais ça personne ne peut le faire Macky Sall il ne peut pas le faire en sept mois. il faut que le président aussi joue le, le réalisme politique mm. et là bu buggee jàllale révision constitution le, le, parquet financier bon tension mooy yëgaat encore bon et puis euh, une réforme comme par exemple la suppression de la CREI non honnêtement c'est un débat politique de fond mm-hmm. Mm-hmm. de fond c'est pas quelque chose que bi nga war a introduire comme ça sept mois et en plus tu passes par l'assemblée l'assemblée préparé woo kenn ci assemblée à cette en session extraordinaire et procédure d'urgence ah, en urgence donc il y a un problème là de de de démarche du du président maintenant même les questions par exemple de Karim et de Khalifa mais c'est à la limite un arrangement qu'on pour que Khalim, Karim et Khalifa puissent participer à, l'élection. Mmh. Ce qui fait que pour moi bon euh, fin de mandat euh, du président sa pose beaucoup beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes et, et je pense que vraiment su fekkente ñëpp euh, ne nee nañu ko Macky Sall le fait que mu bañ a lu baax la peut-être que président aussi dañ ko war a gunge pour mu mu bañ jeexal ci tension mm-hmm. am suspension de la révision suspension du parquet suspension de tous euh, li nga xam ne dina indi coow ñu suspendre maintenant on essaie d'organiser les élections pour man fi ñuy xaar Macky Sall dëgg-dëgg mooy naka la war a fexe ba organiser élections yi ci jàmm ak salaam que nit ñi mën a voter de manière souveraine maintenant les réformes vraiment qui renonce aux réformes lu mu deful en vraiment pas deful touché à des lois par rapport à vraiment pas c'est pas le moment du lu mu deful en 2012 quoi voilà li mu deful en 2012 c'est pas en sept mois qu'il va le faire ça aussi le réalisme euh, bon maintenant malheureusement comme ñëpp wax nañ ko l'Assemblée bon c'est une caisse de résonance aussi que euh, que s'il veut coûte que coûte faire passer euh, ces lois là lois yi dinañ ko dinañ ko voter. xam nga xam nga xam nga l'affaire l'affaire des deux cas c'était le souhait de de l'opposition et comme du pouvoir ah il faut qu'on se dise ces ces vérités là ne ba ngay dem campagne opposition bi surtout waxoon nañu suñ demee dañuy amnistier dañuy amnistier diw et diw donc te loolu pour def ko il faut des lois moi man dama jàpp man dama jàpp ah nit ñi nañ ma baal nag mais a sept mois d'une élection présidentielle quand même. Euh, le code électoral waruñu ko laal man dama jàpp loolu même su nekkee dafa war apporter des consensus forts parce que aussi la loi pour man waruñu ko def pour ay nit dañ ko war a def pour un cas parce que la loi est dañ ko war a def pour dafa dafa war a nekk. mais une amnistie aussi on n'amnistie pas une personne. on amnistie des faits waaw moom loolu la wax léegi c'est tellement profond. waaw que du loo xam ne da ngay ñëw nii rek. voilà c'est-à-dire c'est c'est pour man c'est c'est ces révisions là euh, euh, bi baaxul parce que dina am ñu mu arrangé. dina am ñoo xamante ni peut-être ils se disent et, et puis il y a la question à se poser est-ce que est-ce que ñoom ils sont inscrits sur les listes électorales pour leur permettre de participer à l'élection présidentielle aussi c'est un débat qu'il faut poser pour man parce que oui non non non ils sont pas inscrits mais mais si on vote parce que non attends. non non non révision. non non du am révision. mënul am révision. mënul am révision mënul am révision. parce que la la l' article M57. se sont tous les deux présentés pour demander à ce qu'on les inscrit. mais la demande d' inscription. n'est pas une inscription. parce que les gens ils ne voient que le code. le code électoral il a une partie réglementaire. oui. te les décrets. ñu nekk toujours ci fin yi livre mais kenn du ko lire. mooy yi ñuy yi ñuy wax R. R waaw xam nga fële dañuy wax L fii ñu wax R. partie législative partie réglementaire réglementaire. yooyu ci boo demee ci partie réglementaire bi daf la naan l'autorité en charge de la réception des demandes d'inscription peut radier. Mm -hmm. toute personne qui ne euh, qui ne na ne nu ñu koy waxatee qui ne répond pas répond. aux conditions. Mm-hmm. normalement radié nañ leen ba pare. seen inscription. à moins que à moins que ñu nekk dans une autre. Euh, parce que s'ils sont dans le cadre du code électoral ah, actuel. actuel. comme dit Adama ils sont pas inscrits. ils sont pas de la nga Sénégal man dara du ma fi bett Sénégal bi may dund man di fi yeewoo dara mënu ma fi bett. <laughs> loo ni mënut a nekk loo ni c'est impossible dañ koy rend possible nit ñi di ko gis te kenn du ci mën dara. voilà il y a il y a bon pour revenir à la réalité on du jël initiative pour jël ko. il y a, en qui, place. le scénario, c'est sûr et certain candidat, bon, dina tànn candidat am su votelee candidat boobu candidat boobu gagné pour dissoudre l'Assemblée, c'est ce candidat qui va dissoudre. Si l'Assemblée n'est pas dissoute, avant. Il y a un objectif politique qui est derrière. je crois que il a déjà ouvert une piste. le retour de Macky aux affaires il faut pas l'exclure dama ne Macky ne quitte pas les affaires Macky ne quitte pas non mais yaa yaa mais non mais non la possibilité de retour de de Macky mais attention moi c'est pas l'hypothèse que j'ai l'hypothèse c'est que Macky Sall a un problème de de partage du pouvoir Il lui faut un candidat, c'est le candidat à la présidentielle, mais il faut aussi qu'il voit le futur pouvoir législatif. Mmh. Il est en train de positionner quelqu'un. Donc le dispositif de, de Macky Sall est clair dans ma tête. Il veut un candidat pour gagner la présidentielle, il veut le, mm-hmm. un le candidat à l'Assemblée, il veut un candidat qui va gérer la PR et le, et le Beno. Non, la mon Macky, d'accord. il est dans ce dispositif-là. Euh, il va aller jusqu'au bout sauf sauf moo am par exemple ce qui s'est passé en 2011 c'est-à-dire que dans dans les dans la semaine là personne ne sait ce que la société civile va va va va apporter comme réponse mm -hmm. les partis politiques les leaders mm -hmm. bah s'il y a une fronde contre cette révision là bah, le président devra choisir, affronter, okay. aller jusqu'au bout ou bien retirer. Maria, avant la pause, me lire, il y a le groupe parlementaire Yéwasken qui organise un point de presse lundi à 16h au siège du PUR. Donc, euh, peut-être. dinañu wax li ci lan la ñu namm ci xew-xew assemblée on fait une pause donc si vous, si vous le permettez euh, la diva <laughs> non dafa am ku koy woowe noonu ci kër gi moo tax ma ne ko si vous le permettez mooy joxe parole Maria si vous la diva D'accord. Alors on fait une petite pause et on revient juste après le journal.